honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly vice président commission de loi assemblée nationale. waaw recours bi yoon moo ñu ko may ci loi ak constitution bi ak loi de loi règlement intérieur assemblée nationale mooy ku ne xam na ne dafa woote woon benn loi boo xam ne code pénal ak procédure pénale boo xam ne ko woote woon fii assemblée nationale ñu gis si ay articles yoo xamante ne ni mooy article soixante-dix-neuf bar bi ak article quarante-cinq bi nga xamante ni tey ji mi ngi si te loolu dafay laal li nga xamante ne mooy constitution bi te yaakaar naa ne loolu waruñu ko mën a jàllale loolu moo tax bi nga xam constitution ñu war ko déposé ginnaaw bu ñu amee ñaar fukki député man maa ngi ne ak Cheikh Bamba ak vice bi nga xamante tey moo ñëw pour constater li nga ne mooy li ñuy laaj ndax ku ne xam na ne booy déposé da war a ñëw nga laaj li nga xamante ne mooy loi bi Assemblée na bu fekkente ne ñu nanguwul la ko jox nga def constat bi jël pour sa loi yi nga dem nga déposé ko si nga mooy conséquence am nañ tey ji la moon délai bi fii cinq heures war nañ ko dem déposé war a ànd ak moo tax tey ñu ñu ñu ñu woo vice pour mu fekke loolu ngir ñu yóbbu ko déposé conséquence ngir ñu annuler li nga xamante ne mooy wot bi fa am ba noppi ñaareel bi ku ne xam ne ni soixante-dix députés ñoo wote woon ak dix députés yi nga xam ñoo fi ne onze députés yi nga xam mooy contre bi muy quatre-vingt-un députés te tey normalement pour nga am majorité dafa nga am quatre-vingt-deux virgule cinq députés Euh, virgule cinq lool mooy li nga xam moo tax ko war a jàll ñaar yëpp bu fekkee am na nag ñun li nga xamante moom lañ ci war def en tout cas waaw am na ñaar fukki député fi ñu doon may wax yow nit te fi ñu doon ni boo amee fukki député ak juróom-ñett rek am nga sañ-sañ mais am na ñaar fukki député yoo xam signé nañ depuis sur bi ñu déposé ko voilà euh, ñu jógee fa avant ñu dugg fii nii maanaam leen li nga xam moo si toppaat tamit député opposition parlement opposition bi Euh, ñoom ñëpp d'accord nañ condamné fermement li nga xamante ne mooy discours Malick Sall mi nga xam ne ministre de la garde des ci li nga xam moom la traité député yi ginnaaw bi nga xamante ne nag wax na loolu muy wax ju ñaaw ba pare wax fi affaire chrétien ak musulman ci xàjj la te loolu suñu constitution daf ko daf ko tere loolu moo tax ñu député opposition bi ñu demande pétition. parce que moom ñu dàq ko si ministère bi nu mu gën a gaawee am nañ signature yi daan ko déposé aussi tey tamit ci président de la République daan ko jox ki nga xamante ne maanaam mooy ministère bi yore mbirum charge de euh, relation avec l'institution euh, moom muy muy muy ki nga xamante ne mooy euh, Samba Sy incha allah leen li nga xam moo jëm ci li ñu doon wate tey jii mooy ku ne xam ne dafa am benn programme boo xamante ne deux mille vingt deux deux mille vingt quatre la muy koppar yi ñu war a natal pour li doxal réew mi. koppar yooyu nag bu ñu ko càmbaree dañuy gis ay manquement yu baree bari tey tey boo xoolee débat bi xaw na dal ndax li tax ko mooy kenn ku nekk si ñoom da ngay ñëw pour que nga wane sa bopp wala feeñal fa nga xamante ni ay manquement am na si fa nga bokk. mooy wan ne rek ñoom fi ñu bokk mille 2012 ba léegi day mel ni Macky di fu dara si réew mi ndax tey député bu jël kàddu yi nga nekk maire da wax ni sam gox bi ma dëkk lii manqué na fa lii manqué na fa lii manqué na te man damay comprendre que ni dafa am fu ñu bokk dañuy far mais xam na ni ku xar seen xol la doon xam ni lii réew mi war a doxe doxewul noonu loolu moo tax ma rappelé ko mag euh, ministre bi ni kon li ñuy bàkkoo di ko di ko di ko di ko ndamoo muy alal joo xam dafay dugg si réew mi mais il faut ñu delloo njukkal douane ak impôt ndax ñoom ñooy yore koom-koomu réew mi. ñooñu ginnaaw bu leen delloo njukkal nag li tax que loolu maanaam mooy du ñu ay politiciens askan moo leen ñor. ñaareel bi ma xamal ko ne ko maanaam gis na ni ay yokkutu yu bare bari yoo xam ne mi ngi jëm si mbirum dund bi ñun ceeb bi yokku na diw gi yokku na même ba ci yàpp bi yokku na lépp a yokk léegi pourquoi yokkute googu noonu muy gën di continuer ñu naan économique ba ci tamit mi ngi jaar yoon il faut ñu xoolaa loolu mooy ku ci xam tëli yi ndax tey ay tëli yu bari yoo xam ko programme woon tey ji fi may wax yow jëlaat nañ xaalis boobu noonu art na sànc yooyu xamul fan lañ ko dugal yaakaar na yooyu yëpp ay càmbar la doon yoo xamante ni gis nañ ko laaj nañ ko ko ñu ngi xaar tontam mais daal lim ñu indil mooy DPP bi mu ñu jox ni gis naa ni programme loo xamante ni am na lu bare bare lu si manqué yi mbirum hôpital yi mbirum eh, université yi mbirum hôtel yi mooy mooy yi nga dañ leen yor hôtel yi ñu yor seen xaalis ci mbirum kur ba léegi mun leen a fay yooy yëpp ay manquement la yoo xamante ni tey Sénégal war naa xam ni fii ñu nekk lii mën a doxal mi mooy booloo nekk benn ndax Sénégal dafay gën a metti ndax économie bi ak li nga xamante ne maanaam mooy feebar bi fi jaaroon loolu nag bu jotee yoon def na nga orienté leen wax leen fi ñu war a jaar mais na du teg nga resté opposition fi nga war a nekk pour wax li nga xam a gëm. muy wàllum euh, projet pour tali yi euh, nee nañ budget bi génne na sànq sànq dégg naa euh, si say wax wax waaw loolu laa koy wax xam nga moom ñoom xam na ni mënuñoo comprendre que chaque année ñu génne xaalis xaalis boobu noonu du fan ko war a jëmee jëmuñ ko foof loolu moo tax ma ne ko bala ngaa woon a indi DPEP e deux mille vingt deux deux mille ñu auditionné li nga xam mooy DPEP deux mille vingt deux mille vingt ndax yaakaar naa évaluation war na am ñu xool ba xam li ñu leen joxoon si xaalis fan lañ ko dugal ñu natt loolu dugg leen mën a dal mais fi nga wax lu lu waa règlement sax ba léegi ni daal bari na nañu góorgóorlu si koom-koomu réew pour jéem koo leeral jéem ko seetal aussi jéem a def ba nga xamante ni askan wi doon am transparence pour ñu mën see gis seen bopp mais lu si baree bari daal dafa fulu bañ na sax ba sama yan yenn collègue ñu ngi koy laaj wax ni Euh, bari na dossiers yoo xam ne ñu koy nëbb ndax bu njëkk bu ndaa mën a indi lii dañuy wane état bi société yi xaalis ak fan la mbir mu tool yooyu yëpp tey dañ ko dindi pour làq ko lu tax ñu koy làq nag wax dëgg yàlla xamuñu ko mais en tout cas daal war a góorgóorlu taxaw tamit ci li nga xam ne mooy économique réew mi pour mën a jëm kana te loolu noonu lan moo koy mën a maye mooy encouragé déjà ñi nga xam ñoo impôt douane ñi nga xam ñoo dugal yi félicite leen encore ba pare ñaax leen pour ñu gën a góorgóorlu ba pare maanaam woyofal askan wi li nga xamante ne mooy euh, li ñu war a a def pour ñu jëlee xaalis ci ñoom xaalis boo xam ne dafay bare ba duñ ko attan xanaa rek gërëm si gërëm naa ko gërëm naa député yi ndax xam nga bu fekkee da nga def session depuis octobre ba léegi nii nga ne fi euh, après vraiment dana am ay coow ak kii yooyu nag euh, mook ensemble ñu solo mooy réew moo ñu fi tax a nekk opposition la dañuy défendre suñu opposition dignement li ñu def ñu di ko def li ñu waroon ñu di ko wax pour askan wi ndax ku xamante ni dem nga ba aw askan fal la nga ñëw warutuloo xool leen lu du askan woowu noonu tey nag am lu ma sax war a rafetlu ndax débat bi ni mu ni même député majorité bi am na ñoo xamante ni am na ñoo xam pour taxawal seen askan mais dafay faral di nag ñi nga xam ne war na leen jox kàddu ñuy wax ñu si war dina jox kàddu moo tax tey biñ ne dañuy am 60 ñun ñu fexe ba 60 yooyu ñoom duñ fi waxee ndax buñ fi doon wax dañuy tàgg Macky Sall ak gërëm ministre bi rek te wax li nga askan réew moo tax ñu bloqué ba nga xam loolu amu fi merci en tout cas jërë ngeen leen sant leen gërëm